عن المولى
تعالى الذي ربى
فادي وأخلاني
فاكرم به ربا
رديت عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته وخديمه وأمته أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam boobu te di leen ziyaara ci bés bu tëdd bi muy bésu màggal waaye di jiital ziyaara yi ak nuyoo yi Cheikh Moustapha Diop al Kokki di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu kattanal ko dooleel ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àgli ko bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barakatul xaddim xam ngeen ne bés bii day bés bu am solo am nuñ ko war a dundale waaye am nuñ ci war a jàngate ñu war ci ànd nag ak suñ kilifa suñ sëriñ Cheikh Moustapha Diop al Kokki mu war noo waxtaanal ci bés bi yan jàngat la ci murit war a am waaye bal sax ab jullit boo xam ne dafa gisoon suñ Tuubaa fan ko yëg ne ndamal lislaam la ban taxawaay la ci war a am muy ad durusul mustafaat ci tukki géej gi waaye ak màggal gi kon xam naa dañuy déglu siñ bi taataan kàddu yi bu baax a baax incha allah
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fataahu wahabu yaa rasaqu yaa maliki lifta wahabiye wasaniku l ana day xi asilan ajilan bil bishri mahamadin xata ukimari jini day harkana asir joyi tuba waxmini waqini ajro wara waltudi bi sama iskana laka sama wal aradi wal hawa ubi ya musharikin yerub mashkur majin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi siyaare ñëpp ziyaare ci bis bis bu tëdd bi yoor yoor gi nga xam ne ji tusubaar ji jëm takkusaan ja ca ca jeew kon saam kon xam naa kon sëñ Tuubaa ci bis bii kon yoor yoor bii jëm takkusaan ci la nekkoon jeew tànk tànk lool man yaakaar naa fi ñu toll màggal gi màggalu julli la julli dañoo war a feetu julli julli sëñ Tuubaa ci bis bii yor yor bii lay waajal moom tisbaar gaa yi sëkkatal ko ñettamal ko mu ne moom du dem te amul ndigal ci borom waxtu wi jot na day julli nga xam ne moom dara lu koy tee julli amul ba mu demee ci géej ga ñu ne ko ah gaal gi day bu ci jullee dañu tooñ naam naam mu daal di ginnaaw moom bëgg a tooñ boromam bëgg a tooñ boromam mu daal di jëmbeelu ci ndox mi sa sa benn baay bu ndaw baay mu subaataal nee na gis na ak góor ca ndakaaru mu ne ko gis na soxna soo xam ne nekkoon na ca gaal ga nee na ko bi sëñ bi jëmbeelu loo ci ndox mi mbeex mi nee na ñëpp dañoo yuuxu la daal ne marabu bi tubaab yi doon yóbbu de mi ngi xaru ñoom dañoo yaakaar ne day xaru ah daal di daanu ci am ndox nga nga xam ne kon sëñ Tuubaa kon daa mel ni julli julli julli moom daa mel ne kon nee naa ay waay màggal gi bu buñ defoon programme moom tusbaar ji bu bu soo une heure jotee ñëpp ñu wax ñu daal di synchroniser rajo yi penc yëpp ñuy waxtaanee julli. na na ñëpp wut satala ak sajaada gu rafet waajal julli tisbaar Sëñ Tuubaa di moom ci waxtu wu tànk tànk wa ci la julli woon ñëpp daal di yëg julli kon dana mel ne kon bu bu ñibbee ba diwén julli gi dana yes ci noonu waaw kon kon kon moom magalu julli la mag magalu julli julli sëñ Fallu mu wax ma daa wax naan liggéey bi mooy julli liggéey bi li liñ fi andi julli la wax wax la ju gàtt ju tënku nga xam ne kon moom julli mooy magal gi waaw moom moom- moom kon kon eh, xam naa ñu bari ci mbooloo mi duñ ko tal ñoom xam naa kon kilifa yi ñoom waroon nañ ko fàttaliwaat ne magal gi magal julli leen na ñëpp wuti si satala jàpp fuglu waxtu wi waxtu wi sëñ Tuubaa ne- nekkoon nekkoon ca tànk-tànk ya te téewu ko julli ju- julli moom mooy lépp diine tigi tigi mooy julli diine yi li ko tënk mooy julli nga xam ne moom kuy julli rek ñu ñu ñu boole la ci mbooloom julli ñi ku julliwul nag koo xamante ne te nag julliwul nag yàllaa xamub atem kon may si naa jàngate ci bis bi sëñ Tuubaa yitte himma ma nga ma nga cee jàng yitte aku fit akok dogu fi ñu toll euh, maam Thierno maam Thierno mu tedd ma bi ko sëñ bi laajee xalaatam ci mu dem gi mu ne ko mu mu ne ko man dey mu mu- mu- mu ne ko soo soo dikkee ak boo dikkut moo yem sans pas-pas du soppi ko kooku nag dafa am tëmkin moom nga xam ne nga nga xam ne gë- am na yaqin daal ne sëñ Tuubaa moom lu man de am it xam nga ku ne xam na ne shahada am na shahada dem faatu ci ab xare shahid lay doon kooku moom daraja ju ju- ju mag la bu ñibbisee noonu kon sëñ Tuubaa bu bu bu bu ñibbisi woon it bu ñibbisi woon it ndam la ndax lislaam a tax muy dem da da da da nga ci fekkaat lu am solo muy position. yàlla jaral la ba nga am position te te jëfandu bu dëgër li nga gëm te muy dëgg yàlla boo gëmee yàlla te muy dëgg ci yow kenn mënu ca génne laa ilaha illallah kenn mu mu mu ci génne moom kenn du ko man kooku position la sëñ Tuubaa position la woon waaw tubaab bi dañoo bëggoon gars yi bay bay diine si signature ba ñu ko waxee xul walaahu ahad moom la moom la moom la signé waaw na ndax ba tey raayowul lislaam wi la maa ngi doon waxtaane bis jumaay njëriñ ab bayaan may leen si Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee ci ca bureau ndar ba bureau ba daal di daal julli ju rakkaam yooyee noppi góornóor daal di ne na dindi ka kaala gi kaala gi sëñ bi sol mu ne euh, sëñ bi nanguwul góornóor ñëw ba ko dindi bu- bu bu ko jooyalee mu mu- mu- mu- mu jëm ne tabax bi jooy jëm noonu su ko su ko su ko jubantee def ko ne taw taw dina taw bi daa koy jékki-jékki kalaat ma- may leen xam ngeen lu mu doona du dara lu may raaye laa ilaha illallah muhammadun rasulullah booba la la la la la kaala ngay représenté xam nga kaala xaw ma raaya euh, buñ buñ dee xeex ab guerre raaya bi dañuy fexe ba du la laal suuf ndax saa bu laal suuf rek mooy gañe nañ leen ko- kon ko- kon sëñ Tuubaa moom keroog kaalaam nga mooy raayo laa ilaha illallah muhammadun rasulullah nga xamante ne te ne kon moom kon moom sëñ Tuubaa do do- docteur Mouhamed Lo daaw si waxta waxtaanam wa jël nag lu am solo sëñ Tuubaa lu ko dal ci dund kitaab ak sunna la wax la ju fort ci man tagg woowu moom mu ne su ko weesoom waaw waaw sëñ Bàmba lu ko dal dund kitaab ak sunna moo ko teg waaw tagg moom doy na sëkk moom sëkk sëkk sëkk ci man te noonu noonu noonu la demee maanaam léegi sa sëñ Tuubaa bu doon ki kitaab ak ak sunna day toog ni ñëpp sun maam yi njubboon ñëpp ki ki ki kitaab ak sunna taxoon Ahmadou Aminata makka ba baraama xali géey si lambañ sekk ñoom ñëpp ku ci ne dañ laa xool ba ba xam ne kii moom dafa am projet de société projet la yor projet projet l'islam tubaab bi ñoom nanguwuñ ko waaw 1900 mi xaw ma 1902 xaw ma tubaab bi ñoom wax nañ ko ne nag léegi daal du du duutuñu maye moom beneen projet di jàll bu bu du seen projet jeex na léegi moom léegi moom l'islam ak yooyu moom du mën a jàll waaw ndax ñoom gis nañ ne li- lislaam ku ci nekk da ngay yiw da ngay am xam-xam da ngay nangam waaw lée- lée- léegi loolu kon léegi day day contre seen civilisation bi sa sa sa sëñ Tuubaa moom da- moom moom daal daal di am position taxaw dëgër waxoon na ko ca ca gànnaar tubaab bi ni ñuy doxale mooy xëpp ak xàpp daal di ne ko luy loolu xëpp ak xàpp xëpp di jox la alal jënd la boo nangoo boo nanguwut ñu xàpp rey ño- ñoom loolu mooy seen doxalin mu Seydina Muawiya loolu laa wax ku ku ku koy kontar mu mu mu mu mu jënd la soo nangoo boo nanguwut mu rey mu jeex loolu moom loolu moom ngu- nguur yi noonu la ñuy doon doxee ñoom nga xam ne kon mën nañ cee jàng- jàngat am position ci dara sëñ Tuubaa ba ba mu dem ci géej gi moom képp a dem wéet cundum te téewut ma nga ca principe am yi gëm-gëm yi pas pas yi xam nga fi toll koo xam ne yow soo wétalikoo rek ci ci ngay def dara ci ngay gëm dara soo wéetee nopp génn ca kon ni kon ja- danañ jànge ci bis bi tey ak wéet si si si sëñ Tuubaa bi muy ñëw jeewal xam na ne mbooloo mi ñëpp danañ ko baax xam na ko de loolu lu am solo la maanaam wéttali ko kudul yàlla koo def wét faw bis ñëw nga wét moom demal ci bàmmeel rek ñëpp bala soo amutoon wala kulure ak yàlla da da nga wét bi ku la mën a wéttali keroog kudul ku kudul moom amul sëñ sëñ Tuubaa keroog bi muy dem ci ndakaaru dugg ci bato bi gaa yi di xëccoo kër kër kër tubaab bi daal di tiire bal ci ci ci kaw nit ñi daal di tasaaroo oh ma ne boobu saa saare xamoon sëñ bi ñëpp ba ko moom moom moom da ngay dem ma ngay daago nank parce soxna seen ko daal di sarxolle daal ne kee dong de mu- moo war a tëkk tubéy sëñ bi gëstu xool ko sëñ bi nee na saa su liggéey bi saa bu demee ba ba mu tàng rek su xam ne demee ci soxna sa rek mu gën a jaaju di nga kon kaddu bu baax kalima tayiba kaddu gu baax ak am njëriñ xale soxna sa soxna sa waxam ja gën naa suub Sëñ Tuubaa ndax ndax jàmbaar nga jàmbaar genn kaddu dama ne euh, gërëm yi genn kaddu dong moo moo leen tax a daanu ci ci xare ba gërëm yi nga xam ne dañ da- ay noble lañ duruñu dëpp kon dañ jàngee ci bis bi tey ak noblesse ak noblesse nga xam ne nga xam ne gëm dara gëm dara gëm dara gi nag yow képp nga ne ca doy na nee naa yow ku fexe woon ba ba ba ba doon ab julit piir murid dëgg salaay salaam am na ndam yett bi Sëñ Tuubaa am na ndam yàlla am ndam yow kenn laa de waaye lijjantil yow ba doon ab julit piir dëgg dëgg bu wóor sa diggante ak sa borom laax nag wa- wa- waxuma li li nit ñi wax ci yow bu la wóoree mu wóor la sëñ Touba mii nangul nga ko yaa ngay aw ci ca lam doon diglee sëñ Touba am na ndam yonent bi am na ndam yàlla am ndam waaw ne ne ne ñëpp doon yëfar waaw waaye bul xaar bul xaar bul xaar ñëpp doon na na sëñ Touba bëggoon. musta am ji genn jamono jo joo xamante ne sang sa ñëwoon doon gindi nit ña lañ am a ëpp la seytaane am musta am. musam de Seyduna Adama alayhi salaam ba mu tukkee ca xalam ba ba mu dikkee fekk na kë- kër ga tas doomam rey doomam ah, ci nga ne ci biir kër gi bay tund bu wax ci lañ ci lañ njëkk a tuure deret loolu loolu ah yii sëñ bi yàlla yàlla moom xam nga xam nga yàlla da- da- dañoo bàyyi ak suñuy pexe nag sa sa sama baay waxoon na ma da- dara lu am njëriñ mu ne ma koo xam ne day woocal yàlla te amu ci ndigal di ko xeexal te amu ci ndigal ngir fiir gum fiir ci diine yàlla da koy bàyyi ak pexeem moom moom iblis moom la fu fuñ toll ku ku juum xaan yàlla yii yàlla man kay maa la gënal iblis de aw waaye ndaw yàlla bi iblis di yàlla iblis iblis daa am njëriñ loolu ib- iblis wàllu yu woo gis muy tiit iblis tax iblis kon boo mutoon ci sy- système bi kon système bi yàqu de ah système bi système bi kale la ci iblis ka- kale la ci biir sy- système bi li tax système bi dox iblis la bokk waaw y- y- y- yàlla moo bind benn kale boo xam ne iblis du iblis bu bokk ci liggéey bi waaye moom day moom nag moom nag daa um tawfeex moom day liggéey ba noppi am sero waaye ci liggéey bi la bokk de iblis ko am solo la ko am solo la ci liggéey bi moom yàlla ko bind yàlla moo yàlla moo moo tànn iblis tànn ko ne ko yow yaay raisul asqiya gaa yi texe di yaay seen njiit ilimaan ja ah wala mu ne am na ilimaan asqiya ñoom seen ilimaan muy iblis yàlla ko nommé nomination la bu kawe nag xool iblis fa bi izzatika kooku ak a gëm yàlla kooku kooku gën a am gëm yàlla neexut a am de lu tax am sëñ bi fa bi izzatika giñ naa ci sa tëdd nga ji oh kooku sëñ bi kooku ku ku gëm yàlla la Seyduna xalaat xalaat xalaat xalaat salaaw si rëxoo daa gis iblis ne ko waaw iblis yow la la xam naka laa lu lu tax bala yàlla bala yàlla sujjóot la su- sujjóotoo mu ne ko yàlla xamoon na ne du du du ma sujjóot man du ma sujjóot tël kuñ bind ba ne iblis iblis nag daa juum fàtte ne ne ndigal la mooy mooy muxaddas ndigal li bi yàlla su su neen su su fa qaamu lahu saajidiin léegi léegi al amru muqaddas la fàtte na ko loolu calcul bi yàqu baaxut muqaddas la léegi mbir mi su su su yottalu Adama amru tanfiisi bi bi bi buur bi génne def ko la yow léegi su booy malaaka yi su su su yottalu Adama de. ndigal la lañu la ñuy def ñoom ndigal kaaba ga boo fa demee di ko wër boo amee xel da ngaa luy lii aw doj ma ko di ko wër mooy la aw doj Seydina Omar ba muy wër kaaba ga daan ne ko wallaahi bu ma xam naa ne doo jëriñ doo lor su ma gisoon salaay salaam di di la fóon du ma la fóon xajaru aswad ba dégg ko kon moom amri lay def moom bismillah bismillah ndigalul yàlla li lay lay def bu bokkut ak ka doon fóon doju xërëm déedéet bokkut de kii moom day day day fóon doj woo xam ne teranga la salaam salaam teranga la yàlla moo teral doj wi ku ku ko fóon def nga ndigal kon ma ma ma ma ma si jëlewaat beneen dars darsu loo dugg te xam ne dëgg la loo dugg te xam ne dëgg la bam leer la du duutoo del tu tu gannaaw sëñ Tuubaa ay kàngami jamonoom ñoo ñoo ko waxoon ne ko tegaa ànd ak ànd ak ànd ak la joor ay kàngam de kàngamam maa si baayam yi ñoo ñoo ko waxoon loolu dagan na àndal ak moom soo àndee ak moom doo ñàkk dara sëñ bi xam ne ñooñu jàmbaar lañ waaye dañu daa am lu ñu xamut lu mu xam moom sëñ bi bañ nga xam ne sëñ Tuubaa kon bu defoon ni baayam kon suñ jotaay bii kon doom te nga de wét wét cundum cundum ci pas-pasam bi mu xamee ne pas-pasam bi dëgg la waaye nag waaye nag waxuma nag nga ne ci dara du dëgg nga nga ci nga ngooñ ci jëm alaxira ah képp koo xam ne dangaa dangaa ngoy ci loo xam ne du du dëgg génn ca gaaw ndax moom koy it du am njëriñ kon kon Sëñ Tuubaa way gi way manes na koo dégg foofu am na leneen loo xam ne mooy mooy tigi magal gi mooy sukkuru yàlla bu bu bu la mayee xéewal nga njukkal ko xam nga am na ñooñu ñaan gaa yu baax yi ñu bari daal ñoom fañ muccee ci lañu sante waaye Sëñ Tuubaa moom fi mu tàmbalee coono bi ci la déedéet Sëñ Tuubaa santul coono bi acinu acinu ax bu ilaya ba ba ba ko sunu sang ba waxee Yuusufa mujj na rëcc ko déedéet Sëñ Sëñ Tuubaa santul coono bi de coono ab coono kenn kenn du ko sant li li tax coono ba coono bi lu lu ko waraloon mooy mooy daa am lu ma ci yàlla dëxëñal nga xamante ne neexmatun fii tey ne xama la munoo jot ci loola feeg jaaroo ci gël bi bu bu dee tagg gël bi tëgg ko de déedéet li muy tagg moom mooy ne liggéey bi la li koy mën a may li mu bëgg kon kon sukkuru allahu min kulli karim akram waxoon nañ ko fi allahu yàlla moo gën a tedd ku ku kuy tedd fu waay jëm te amum xel tedd nga ko fi yóbbu yàlla gën a tedd ñëpp ñu ne ko lu tax mu ne man amahu ku ku jublu yàlla yàlla mu day yónnee tedd nga nen demal gàttan loo jël ma saam ñing bu bu nit ñi séenee teraanga ñu ne fu mu jëm ñu ne ko ñu ne saam ñi ngi dalay gàttandoo kon la kon dalay leer ne kon yow boo duggee ci ca biir da nga am teraanga joo ëpp jooju xanaa man am ma xuu ne in xaadoo takkarum su la loolu wóoree sa am aslim li woo kulla kaan imaan yi sa lépp bul ci bàyyi dara jébbal ko yàlla lépp lépp sa lépp rek de booy ñaan ñaan ko boo loo bëgg musul musul ko ñaan ko musul lépp mooma wala simil isaana li rahmaani nga takkoo loo def ngir jëmoom jëla xam nga fi toll yéene naa ci xéwal yi ñu fi jëriñoo yëpp mu nekk sadaqatan mu nekk ab sarax ñeel Sëñ Tuubaa lu ñu fi jëfandikoo rek ci aw ñam ndox luñ xéwal yëpp rek su moom def ko sarax ndax xam nga damay bañ yëf yi doon doon aada lekk ak naan rek mu jeex damay bañ mu doon aada moo tax fas naa ko moom bu yàgg moom loolu. aslim ku ku la kaan ñëw wala si islam ni waaye jiw bi sukkur yi sukkur ji ma doon wax su su xéwal gi ñëwee delloo ko su borom léegi nag bul ko weddi bul weddi ne xéwal gi mooma bu bu bu kenn wax naan Sëñ Tuubaa xéwal gi déet Sëñ Tuubaa jaamu yàlla la xéwal gi jaamu yàlla yàllaa fi indi xéwal gi ci barkeb Sëñ Tuubaa kon léegi delloo ko ko. xéwal gi nañ xam ne noonu xéwal gi ñu ñu nekkee tal ko nangam nangam am na kër yoo xam ne fi ñu toll mënu su fa nekk mbooloo mënu mënuñu fa nekk lu ñu am lu ñu am fii ñu toog nii mu féex lool ndox maa ngi ne soriñu su dee da ngaa delloo yàlla xéwal gi toog fa isaab boo su xéwal googu yàlla du ko isaab te te xéwal gi mën nga koo dun dundee te doo dem sawara te xéwal mën naa yóbbu nit sawara ndax day day tax a beew kon waajuhu bi sukkur yi bi la ko fani te loo ko xewal gi ne ne ne ko yow a de yow a yow yàlla bi la ko fani ku santul da nga xarab si si si ku santul da nga xarab yàlla ku ko santul xarab nga xewal yi doy na sëkk moom. fan yee xuma dama julli yaakaar naa dafa gën a damay julli def naa ko fii ak ak Pazar su jóot sama xel dem ci xewal gi gi ma am ne mu baree ma ne yàlla mbaa du xëdd këcc la daa bari ci man daa bari ba mu tiit mbaa du xëdd këcc la man li ma am kon doy na ma de damaa doy ba ma tiit ne mbaa du yàlla lépp da da ma ko fa taxañal jox ma ko man sant naa sii sant naa man sant naa waajuhu bi sukuri bi la ko fraani gëm naa ne yàlla képp moo ma jox xéwal yi gëm naa ko man moom yàlla sarax na ma jaawaliwu ma yàlla kenn kenn moom kenn moom ku dut yàlla xam naa xel ne ab jaam nga ku dut yàlla xam naa ne loo xam loo man yàlla bu dul yàlla doo xam doo man kooku man wër na ma cëng moom wax jooju it bu ma demoon ba ci kanam si Cheikh Mamadou Mountakha ñu ne ma boo ko fa waxee mu mer dama koy wax bu meree génne ma ma dem fii teg yàlla foo xam ne fu ñu ne ma woon boo fa demee tagg yàlla wéetal ko ñooñu mere la man est-ce que naa fa dem ndax ñooñu mere ma ndax mere mi bi day neex ci man ñu mere ma ngir yàlla ma man man man yàlla na na na faroo sama lépp man bu- bul ma jox kenn loolu tukk fay sabu maa njiraan yi kenn du la régler ëllëg naa la yow sa sa xéwal gi noo noo ko defoon sawara moom yow doo ko jege sëñ bi xool sëñ bi bayit yi ak am solo sëñ bi oh sëñ Tuubaa sëñ sëñ Tuubaa de wa- wa- wa- wàccoon ak moom ko kon de ko ko ko daal lu kon ëpp tënk la delluwaat ci tawxiid ji rek tawxiid ji moom ñu ñu ñu delluwaat ci tawxiid tawxiid yàlla daa fiir serafal nee na yàlla ab sëriñ jëkkër dañoo fiir yàlla daa fiir nangul ko ko bagal kenn ab sëriñ noonu jëkkër jëkkër def ci yow lu mu man ba noppi nga ne ah man de góor a njaay moom ay dundal te mu dégg o o góor jóob dégg ko ah dana mer xaade góor jóob dégg ñu ne soxlaam si ne naan góor a njaay muy dundal te moom lu teñ tuñu ne ba sonn ngir bëgg mu bég béggoon yàlla ngoog yàlla yàlla nee na mooy ax na suraka loo loo ma boolaa bokkaaleel ma ba koog yow man man rek man rek kon taw it jàngoog laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi ku leen di ku ku leen di yilif bu ngeen dee ay nita du leen yilif ci lu may muhammadu rasulullah ku lay wax lu dul muhammadu rasulullah sallam ku ku la ko wax dawal yow kooku kooku dof la dawal kooku am noonu la daw ko muhammadu rasulullah képp képp lañ sa moo ñu sañ a yilif moom foofu lu am solo la maanaam nga xam ne tawhid ji yàlla moom mooy yàlla muhammad mii la teg ci sun kanam kenn du ja- jàll ci buntam ba te awoo ca buntu bi yàlla bi tigi ambassadeur bi mooy sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam së- sëñ Tuubaa su suñ jëwriñ ji man zanna nii xayra xadimil mustafa fa inna nii axdimuhu kama stafa ku yaakaar ne leneen laa lu may mbindaanam salaay salaam man mbindaanam laa de axdimuhu nag ilaa duxul janna amul da- amul amul app de dama koy liggéeyal ba dugg àjjana day xaar moom tamit ay sëñ Tuubaa leer na kon sëñ bi de yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu wa sumatu muhammadu yaqulu abdullahi ja ab jaa boobu yàlla lay wax léeg-léeg ñaan sëñ Tuubaa kat xaw ma waxkat yi naan sëñ Tuubaa nangam may sëñ Tuubaa sëñut def dara dara dara lu may ndigal yàlla moom sëñ Tuubaa it yilifut yàlla yilif ko si yilif ko de ji jege ko yëpp sax wallaahi wooy sëñ bi kooku sala salaam ci boppam jegewut yilif yàlla moom fu fu mu ko yilif sëñ bi ab jaam la de te te sëñ bi loolu maa ngi wax démb xaw ma xaw ma ñu ko ñëwoon maa maa ngi leen sëriñ si dañu dañu dañu war a def annonce wax ne xul innamaa ana basharun mislukum yuuhaa yi xam leen ne man as njaam la maag yéen a yem kott benn lañ. sëñ Tuubaa ci ci Masaalik sa jëmm ji ne mel moo ko sa jëmm sëriñ bi benn la mislukum différence bi rek mooy xam naa loo xamul yuuhaa ilay kese la di. ay nit lañ du du maanaam sëriñ bi du dara daa am tawfeex ju amut te boo góorgóorloo mën nga ko raw yow ko daa kon yokkoon sëñ sëñ sëñ sëñ Bamba ngoog kon kon mooy màggalu julli màggalu julli julli gi daal moom nañ ko fonk bu baax a baax a baax si si si sëñ Fallu mu baax ma nee na mooy liggéey bi ndax daa bëgg daa xoq ci ne ndox mi set na wécc ni ko sariya waxee ndox moo xam ne xet ga soppiku wut caf ga ka soppiku wut melowa soppiku wut muy muy couleur ba nga yéene maa ngi jàpp ngir jaamu yàlla bu bu lee nag maa ngi jàpp ngir jaa julli tusubaar takkusaan soo ko waxee boo ne julli tusubaar topp mu tëjut takkusaan ñëw sëñ Tuubaa nee na mënoo caa julli takkusaan de xanaa nga xanaa naa fi laa ko jàng xwaan kon yow boo dee boo dee yéene bul ko tudd ndax sëñ Tuubaa nee na nee na loolu bi daal kon njàpp mi ci la bokk njàpp mi nag ndox mi na nga ko moom wala nga am ci ndigal pakk bi ngay jullee na nga ko moom wala wala nga am ci ndigal damaa jógee dañoo demoon aw waxtaan ca madinatu salaam googee fii sori fa ca ginnaaw ci neen ñu waxtaan foofu noppi nag takkusaan ja ndax fañ doon waxtaan daa mel ne ñooñu duñ julli ñu dikk nag Babacar ñag ñu ànd ma ne ko te ñoo jàdd ci kër gi julli ñu dem nuyoo nuyoo kenn kii ñu ñu ngay coow ñoom Babacar dem ko te ñoo julli fi ma ko déet wóorut di xaw ba xam ñoom da bëgg nañ ko fi lém déet nañ julli ci mbedd mi mbedd mi moom yàlla ko moom fu lu am solo sañoo julli ci kër goo xamante ne amoon ndigal ci julli fa soo ko defee julli woo kon kon julli kon it mën naa waajal waaw am na lu ko jiitu istibra de de dem ca wan a wa seetloo am jot ku tuur ndox nga am jot bu dee góor nga raakol bi day toq lu yàgg yàgg yàgg seeb lu yàgg soog a set nga am jot muñandi ko tuuti waxuma nag nga defa medd nag ba ka ka ko soxla ka ko soxla du sonn ci déedéet maanaam nga ne tekk xam nga ginnaaw yaa ngi yaa ngi seetlu ay yoon da nga xam ndox mi ñaata seconde ñaata minute lay am set nga raxas ko soog a dem jàpp nag loolu ñu bari ci noonu mën nañ duñ ko baxew dugg ci wan mi daal di génn waaw loolu moom ak it lu am solo ku sol pantalon ju dang pantalon liy farata ci yow booy saw nga taxaw ay fa ngay fa ngay tuur ndox nag moom xanaa bu dee day tis fu dëgër la nangam foofu moom ndox mi day dikkaat ci yow waaye nag doo sukk boo sukkee saw mi day des boo jógee taxaw mu daal di yol ku koy def ku nekk seetlu na loolu saw mi des na bu dee suñu aada yi nag moom dañ la taxaw di saw bokkul déedéet loolu aada la du diini diine la wa diini salaamaaleykum taala watu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waxtaan wi am na solo lool te riis na mën nañ cee jàngate lu bëree bëri itam kon bokk na ci liñ ci mën a jàngate mooy yitte ju kawe yitte ju kawe Sëñ Tuubaa yitte ju daa kawe woon mu ne bokk na ci liñ ci mën a jàngate it mooy Sëñ Tuubaa ko amoon fit la asajaatu waaye itam ku teggoon tànkam ci alquran ak sunna la woon ba lépp lu ko dal ci la ko dale ku nangu woon a wet la itam waaye ku amoon ak sax la ci mbir fa ida asamta fa tawakkal ala allah waaye sëñ bi leeral na as sukkur muy escalier bu am solo boo xamante jànkat yi dañ ci bàyyi xel muy ndeke kon sëñ Tuubaa wootewut can gi ngir fàttaliku naqar ya ak tiis ya kon la ca ginnaaw cant lay fàttaliku loolu kon xam naa à noter lay doon ci ci ci ñëpp rek muy la am solo kon sëñ bi soññewaat na itam ci tawxiid ku ko xam-xam na ni ci tawxiid lay omate wéetal yàlla borom bi subhaanahu wa taala ndax mooy gànjar gi nga xamante ni bu ko nit ki yóbboo ci kanamu borom subhaanahu wa taala yeneen yi mën naa nax waaye dégg nga xadiis bi sax yonent bi sax sallam daa wax ne képp ku wax ne laa ilaha illallah xaalisan muxlisan daxalal janna kon ndeke tawxiid am na solo lool bi ci topp itam mu waxtaan ci julli ñu war ko bàyyiwaat xel ndax yonent bi saa sallam bokk na ci li mujj a dé- dénkaane Cheikhuna Ahmadal Xadim ñi itam dégg ngeen ñu ne ba muy ba muy sànni dër ba ca géej ga defu ko ngir karaama waaye da doon bañ a faat waxtu borom subhaanahu wa taala
sëñ Ibrahima si la bëgg ne sëñ la man loolu mujj dinka ne sëñ Ibrahima si la bëgg ne sama bàyyi nee na nee na ko li baat bi mujj wax ak sëñ bi da daa nuyoo sëñ bi ne ko kooku mu ne ko ma ma ma ma matal si la ñu ne allahu akbar mu ne ko lu lu mu doon ñu ne ko mu ne ko xanaa noddu mu ne daw leen jëm ca te loolu mu jox ko.
kon loolu it leer na ndeke Cheikhuna Ahmad al Khadim moom itam nga xam ne daa niroog sàngam ba lool moom itam loolu la mujj a dénkaane kon ñu bàyyi ko xel ñu bàyyi xel julli xam ne ci liggéey bi la bokk kon daal loolu mooy li nga xam ne ci résumé sëñ bi waxtaanal nañ ko fi mu amoon ay laaj nag yoo xam ne ñëw na fi kii dafay laaj akramtani ikraman ma sa faal wa kullu ma aradtuhu min kan faal bayit boobu la bëgg ko ci leeral ndax
leer na kay leer na yaa ma teral teraanga joo xam ne raw nam xel waaye yow mi ma teral lu lu la neex def lu ma soxla teraanga ji mooy lan lu ma soxla ci yow nga defal ko ko waaye nag maam fa Samba Jóob day bokkoon ci moo mujj ci waa barsàq yi sunu maam jooju nee na sëñ bi day kenn ci soxna yi nelaw na jigéen ñi di def yëfi jigéen maa jooy suñ suñ bi daal di ree daal di ne ah malaaka bi dana nee na mi ngi dikkaat ne kii si kenn keneen dem ñëpp ne kamaj ah kooku kooku la de kooku la de waaw ah
loolu moom dara diitu anka loolu dafa tax mooy faral diitu anka ci ma wax rek
loolu def neex na ma.
beneen biit kii day laaj bayit bi mooy yaa malikal mulki lii wa saata duuna jaban fil mulki wal malakuti dahri yàlla
lo lo lo- loolu kay xanaa xanaa suñu sang ba sëñ Sam Mbaye su su ko masaa di wax da- day bëgg waaw day day day bëgg xam nga taw si ah wa inna la muusiun la yàlla wax yaatal gi yaatal suñu boobu lim ko may da ko yaatal nga xam ne mulk bi ñu nekk rek woote mbaa ngi jàll malakoon nag boo fa demee kàngam yi xam nañ ko malayka yi ñu ngi ko tuddee alkazim waa mala ul ahla tudde ko al abdul xadim nga xam ne jundu lay kiraam ñi al al muqarrabin al abdul xadim la ko tudd kooku kooku kooku ah kooku kooku kooku sëñ bi kooku moom mbiram yaatu na may ga yaatu na la la la lañ ne se se se Seera Fall waxoon na ko ñaa ko da nga xam nga Sëñ Tuubaa mu ne mu ne lu bari bi xamut ca ca guy ga xamu ko ci moom daal di ne li li xam Sëñ Tuubaa amu njëriñ xam noo ci jëriñoo am njëriñ.
beneen bi ci des kii day laaj bayit bi suñ tubaab yi wax naan irham jami al wara yaa malikal mulki man jalla an qawadin irham jami al wara maam déggin man lañ ci
kay dé dé dé xam nga xam nga xam nga moom léegi si contexte bi sëñ Touba lislaam ci lay wax astoi ab julit la ab subenke la jamial wara joo xamante ne yéen ñëpp yàlla yërëmal ñëpp waay maa ngi lay ñaan yëfar bag yëpp ba nga soppil ko julit ko soppil ko ko boo ko soppilee rek mu daal di texe irham jullit yi yëf- yi yëfar boobee bu dee nanguwut bul ko teg nattu boo xamante ne ñàkk nangu nangu gaa tax bu ñu xamoon sallallahu alayhi wasallam tigi nangu ko da- dañ koo xamut sallallahu alayhi wasallam ca Taif ba mu ñëwee gaa yi topp ko di ko di ko sànni xeer ba dal wi taq ci tànk bi ngir deretal Seydina Jibril nu cëpp ne ko maa ngi ànd ak malaaka yi yor doj yi soo bëggee ñu këpp doj yi ci ci dëkk bi mu ne ko ah ii di xaw mi fi noom laay ramoon xamuñu ma de bu ñu xamoon ne bu ñu xamoon xaatimu nubuwwa bi bi bi bi ci man ko kon duñu ma sànni xel ne ko ko akay kon kon ko sëñ bi daa bëgg yàlla yërëm waaye nag waaye nag yàlla nee na la xat xaqal xawlu min ñi waaw am am na am na décret bu bu bu jiitu woon nag laa am la na jahannam yi géntu wala sañ meen jahannama moom préparé naa ko ay gan yàlla yàlla ci mucc
macha allah kii itam day laaj mu ne ndax nit mën naa soobu yoonu yàlla won ginnaaw ay waajuram ak njabootam dégmal yàlla rek accam accam accam sëñ Baara da- da- sëñ sëñ Mouhamed Lamine Lamine Baara dañ koo laaj ne ko ngërëmul li eh, sëñ ab ab ab sëñ bu bu mat sëriñ ak ngërëmul way jur lu ci gën mu ne ku amul ngërëmul way jur du gis ab sëriñ bu mat sëriñ ba koy gërëm
kon loolu leer nañu fonkat waajur yu baax te xam ne ci liggéey bi lañ bokk waaw kii de foofu am na ci as ngóor sangam jàmbaar la ñaar ñaari kenn ka ren la war a def bakk bàyyam wéri ji deful bakk ngir bàyyi ko toppatoo bàyyi kenn kat daa waj ba war a tukki tukki lépp noppi na bàyyam wéri ji mu ne mu ne xam na ne bàyyam moo ko yu defal lépp su ko fi bàyyee bàyyam fu fu fu mu jëm ma ne ko ana sa ndey mu ne ma ah dara dal ko de mi ngi doxee so- soxlaam oh ndey jooje de suñ bi ndey jooje de moom doom ji gërëmu ko doom ji dem ba bëgg a tukki xam na ne bu dëddoo bàyyam bàyyam so- so- sonn te ndey ja moom di di doxee so- so- soxlaam
kon ñu góorgóorluwaat baax a baax ci waajur yi waaw beneen laaj bi ci mujj day laaj ne màggal gi ndax nit mën na koo defee fa mu dekk maanaam feneen fu du Tuubaa la màggal gi lay laaj ndax nit mën na koo defee feneen fu du Tuubaa
sëñ Soxna Mbakke Abdou Wóorut teqantal dafa ñu am teqantal bu am solo ci ci at yi naan màggal màggal ak màggal si màggal fu ne mën nga koo defee ci duwaal loolu la waxoon fu waaye nekk rek ma màggal si nag sëñ Fallu ko woote màggal si di ko ne ma leer na xanaa de wala xanaa leer na moom màggal ak màggal si
macha allah kon loolu leer na nañ kii day laaj aaya bi suñu borom di wax naan ana aqrabu ilaykum min hablil warid am ban dëggin nañ ci waram xorobu jooju lu muy wax déet ah déet ah déet xam nga du xam xam nga du du maxal du makaan maanaam su su sun xam nga sun borom moom sun borom du du jege du sori. ndax moom moom niw ci espace temps jege ak sori es- espace temps la sun moom niw ci waaye ye- lakk wi da lay lakkal lakk woo xam ne dana jege sa dégg yow. sa buumi xol yi de xanaa jege na loolu mu naa maa la ko maa la ko gën a jege noonu da nga la wax de sa buumi xol yi de xanaa jege na la nga ne ko waaw mu ne la ma ma ko jege ëpp na loolu ëpp na ko waxtu wu nekk mais suñu borom xam-xam baa ngi teew fi yow xam-xamam ba ani wu taxala mi ngi teew fi yow looy def looy wax déet déet déet ëpp na loolu de li li ngay xalaat suñu borom a ko bind li nga wax moo ko bind li nga def moo ko bind sa sëñ ma dem xadi saraw sirrahu sëñ Moustapha dem nee na ma nax wu moo ko jàngal li arab alfaayil danaan kiy jëf jëf ji ginnaaw yàlla oh sëñ ma dem ak a taw yi de alfaayil moom nanguwut nga ne alfaayil muy muy góor a déedéet ginnaaw yàlla lay wax ginnaaw yàlla góor a moo rey waaj lu lu am solo la man man man nee naa xaw ma leeraa boobu bu ñu ko mën a am lépp ci si si si ma dem dana baax de ñu ñu ne école murit nii lay leeraa be école murit daaray murit tawxiid ji daa àgg ba ca naxu demal ca demal ca saadu tulaab sëñ Tuubaa masala misaal moom la fa andil moom dund la si doit mi mi mi ñu jàngal sañoo di joxe ay am si la ci naxawu yu amut taw na taw na démb te tawut doo ko sëñ de foofu foofu ne ne nee naa li ñu tuddee an naxwul wasiif yi maanaam an naxwul xiim yi la suñu tubaab mi ñuy jàngal ci ci saadu turaab ne sëñoo fen ba ci indi misaal looy wax dëgg lay doon ba ba doon ba doon indi am misaal ci ci naxwu misaal ma daara doon lu lu lu dëggu ba am solo suñ suñ tubaab bi des na jàng wuñ ko te te te man loolu man gisu ko mu fen de man naxu boo xam ne misaal yi dëgg la ah, te te ba Seydou rek te te amut yow sax amu Seydou yow por
kon kon leer na nañ jànkat yi ngeen bàyyi ci xel bu baax bu ko defee jànkati tubaab yi ñu xam ne faayil kon mooy siise ah mooy siise waaw bu ko defee loolu itam dafa am solo ndax en tant que jàngalekat dañuy wax ne yow murabbi nga da nga yar ku yar nag war ngaa fexe ba li ngay dugal ci xale bi doon dëkk kon naa naxwul xiyam yi boobu maa ngi koy door a dëgg ci suñu soi kon xam naa jàngalekat yi ñu jël ko bu baax te di ko appliqué kon xam naa foofu la ñuy yëkkatee jikaay jitaay bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul nu te nangul leen barakat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xanaa ñu jox si mu ñaan xadallahu xaajati ñu teew ñu teew ñëpp rek képp ko koo xamante ne bëgg nga sëñ Bamba te muy dëgg yàlla na yàlla jariñ njariñ loo xam ne ci jotaay bi ba ñuy tukki mënoo koo am feneen
من ملك الخباء يصلي بتسليم
عليه